acteur lañ ñii acteur lañ ñii acteur lañu mm-hmm. nañu fexe mu doon loolu mm-hmm. maintenant président mais loolu magistrat yi ko ah, mais mën nañ koo bañ a nangu waaye tamit moomuñu affaire bi ndax bu doon ñoom ak ñoom rek mbir mi mbir mi du dox ndax avocat yi ñu ngi ciy joué rôle bu am solo euh, greffier yi ñu ngi joué rôle bu am solo donc idée boobu ba mu ko déggee donc euh, voilà maintenant lu taxoon ñu teg conseil supérieur de la magistrature xamuloo ko mën loo ci avancer trop mm-hmm. mais tey bu fekkee dañoo nekk ci rupture systémique pas changement changement systémique moom mooy Ndeye faatu nga jóg ma toog loolu moom changement la bëriwul lu mu loolu mais rupture bi nag mooy nañu indi vraiment ay réformes réforme yooyu ba gaañ defee assises yi réformes yi waxul ne président na génn moom it nee na toog caa génn ci la yemale comme ñoom nee nañu moom dérangé wu leen donc na fa toog parce que bu toogee di déglu yi tamit parce que in fine moom mooy signé. donc bu toogee dégg débat yi ndax bu introduire toog déglu débat yi ndax boo xoolee un président day déglu comme au tribunal le président tribunal bu ubbee séance bi donc il doon ñële ñu wax ab procureur bi wax gaa ñu joxante mu discuter ñu ko kii nii après pare daal di loolu ñu jël décision finale bi mais boo toogul déglu am na loo xam ne doo ko xam parce que mën na la indil une conclusion écrite mais conclusion écrite ban débat moo ko sous-tendre maintenant bu fekkee ne conclusion yi maanaam ñi ëpp doolee ñoo ko bind yow mën ngaa bañ a xam injustice bi euh, li euh, góom bi fan la ne mais boo teewee toog gaa ñi wax nga di leen déglu di nga dégg logique ndax président loolu la ndax président chef d'orchestre la. Mm. waxuñu ko mu mën guitare man sabar man lii maanaam na xam appareil bu nekk lan lay jouer. Mm. donc mu def moment d'ensemble kenn ku ne mu orienté orienté comme ni chef d'orchestre di def wala parce que loolooy mbir mi. Mm. après nga am une bonne symphonie génne musique mu dugg ci xolu nit ñi loolooy rôle président. kon moom toogaayam pour man. Euh, dafa jaadu na d' accord alors ñu avancé wax ci assemblée nationale. Mhm. Euh, bi ñu njortu ne léegi tey. Mhm. président tas ko ndax consulté na ci d' ailleurs le. conseil constitutionnel mhm. les sept sages mhm. yemoo ak assemblée boobu itam di def ay pexe pour jubbanti règlement intérieur mhm. tey jii d'ailleurs convoqué nañu leen euh, pour que ñu waxtaanee ko vendredi njort nañu ne euh, ci la ñuy def euh, procédure d'urgence pour mettre à jour le règlement intérieur bi premier ministre ne woon moo tax du defi déclaration de politique générale Abba Mbaye dégg nañu ko un des députés de Yewwi taxawu plutôt parce que yi moom bokkatuñ ca mu ne euh, ñangay ngay jubbanti waaye président du ñëw te itam xam nañu ne nguur gi yéen euh, yéen a ngi waaj a tas assemblée waaye ñoom pare nañ ñu leen di xaar est-ce que option boobu mooy bu baax bi parce que Sénégal économiquement parlant bu ñu leen déggee mooy ne yëf yi doxul dafa dafa teeng dafa serré donte mi leneen lay wax mm-hmm. mais est-ce que nekkul euh, lu waroo Euh, ndax élection ku nekk xam na ne dafa am lu muy jar parce que bàyyi woon fi assemblée bi naxanteeg seen ay adversaire politique ba génn ci période bi gënul woon que ngeen di jublu ci di ko tas waaw mais boo xoolee actuellement ni mu demee xam na ne dans tous les pays du maanaam nguur ku nekk ngay wuti majorité pour mën a mu mën a soutenir pour nga nekk à l'aise maintenant tey boo xoolee réew mu mel ni États-Unis àgg nañ ci niveau bu nga xamee ne mm. parfois ñoom boo toogee le président bu faloo bu ñu dawalee tuuti il perd la majorité. donc après dañuy xaw a tagge témbe di lool nga xam ne kenn ku ne il faut que tu sortes le meilleur de toi-même ba pare ñu mën a dépasser les positions partisanes pour dem vers l'intérêt supérieur donc euh, tey ñu war a dissoudre jaadu na c'est légitime c'est légitime mm-hmm. l'égalité bi tamit bu délai bi matee l'égalité bi may na ko président mm. maintenant comme blocage amoon na après ñu dem ba léegi évolution daal di am te à l'heure actuelle yaakaar naa ne ñi ngi war a commencer voter budget deux mille vingt cinq fii ñu toll nii jàpp naa ne mënuñu fay tas assemblée ndax boo ko tasee kan mooy voter sa budget ndax fii yëg ngay def élection kan mooy fii nekk ban budget voilà léegi ban budget ngay liggéeyee après ndax amul benn budget bu ñu prévoir pour loolu bi léegi luy am soit ordonnance président di gouverner par ordonnance yaakaaruma ne loolu kii la maintenant ñi nga gis effectivement xam nga tey buñ la euh, waxee dox sa kaw nga daw dellu ginnaaw politiquement gars ñi tam ils sont pas nés de la dernière pluie xuuxalante la rek dinañu xuuxalante voilà mais bu ñu àggoon ci blocage dëgg le président va prendre ses responsabilités yaay déglu mais euh, li am mooy na gaa ñi gën a patriotique na gaa ñi gën a loolu donc comme évolution am na dellu si nañ sur la table kon am na yu ci dox président xam nañu waxtaan na président assemblée donc am na ay waxtaan yu am parce que li ci ëpp luy régler problème yi ci suuf la kenn du ko xam. donc nag it mel na ni kon fi mu ne lan nga noonu la meilleure option mooy fi mu toll nii. Mhm. fii ba ñuy jeexal ñuy voté budget bi mënul demee neneen. ndax à l'heure actuelle buñ ko daaneele kan mooy voté parce que pour ñu daanelee que il faut mu am élection. Mm-hmm. léegi élection yi mënu fee am ci diir gu gàtt gàtt gàtt wala noonu parce que au fond je pense il faut au moins un an de procédure aussi six waaw mm-hmm. mais un an de procédure du intérêt président Bachir euh, Bachirou muy gouverner par ordonnance kon loolu loolu xel dàq ko tooguma ak moom waxtaanee wuñ ko ci biir coalition bi. waaye li am bon en tant que leader en tant que quelqu'un qui est informé xam nga ne voilà donc ñii la mën a demee mais moom bu ñu demoon ba ñu paree budget yooyu euh, jaadu nañu parce que it réew mi joxe nañu beneen benn légi beneen légitimité mhm. beneen légalité donc euh, maintenant tant que nag ñi dindiwuñu leen ba tey légalité bi ñoo ko yore mhm. légitimité bi moom élection donc koy déterminer yaa ngi dégg. Mhm. tey taxaar nañ ne tey ji coalition bu demoon élection légitimité bi dina leen wuysi bu leen légitimité bi wuysee mhm. donc ñu mën a dérouler mhm. pour que effectivement ñu loolu ndax waroo gis-gis moom moom mooy euh, principe démocratie yow nga ni weex na yow nga ni noo gisuma weex li nga def lii moo baax nga ne noonu lii am na lu ko gën maintenant na di nga gis parfois une opposition stérile une opposition une opposition moom lu lu lu lu lu nekk rek nga ni baaxut. parfois nga dégg gaa ñi commencé loolu man leen wax dëgg yàlla ñenn ñi nekk ci opposition bi di prévoir di prédire l'échec. Mhm. wax dëgg yàlla maanaam ñi ngi jiital seen li seen yéene xol. seen xol des naa leer dafa xaw a ñagas dafa xaw a ñuul mhm. mais ci trois mois am na temps bu nga xamee ne war nañ ko mën a may un nouveau régime mhm. bu woote rupture pour moom mu mën a dérouler teg ndax boo demee ba nit ki teg budget affecté li muy affecté teg ay option am donc am budget bu ko soutenir donc bu boobaa après un délai de six mois mën nga ne commencer def des critiques euh, objectives ci loolu mais tey tey tey nga ni non noo non gaañu wàcc nañu yoon bi bon c'est trop vite aller en besogne